yéen ñiy safoo di ñu seetaan ci Leral TV en point net ñu ngi leen nuyu gannaaw bi ñu defee déplacement ñëw ni moom mooy euh, Bambey euh, ci fi nga xamante ni moom mooy euh, commune Baba Garage parce que tout simplement zone bi dafa doon zone d' exploitation minière phosphate lañ fi exploité gis ngeen ko noonu fii nga xamante ni moom mooy dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci Gade Bissik muy gisement bu Gade Bissik doon dëkk yoo xamante ni dañu doon ay dëkk yi impacté ci exploitation phosphate boobu muy société bi nga moom moo exploité euh, fi nga xam li nga xamante ni moom mooy euh, phosphate ñoom waa dëkk bi nag euh, ñi am ay jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy dund li jëm ci wàllum exploitation minière boobule ba tax nañ ñu effectuer déplacement ñu sëkk ak ñoom waxtaan ñu xamal ñu wala bokk ñu expliquer ñu réellement de quoi il en question ak li nga xamante ni mooy impact exploitation bi nga xamante ni moom mooy liñ fi amal fii nga xamante ni moom mooy Bambey rawatina commune Baba Garage ak les villages yi ko yi ko wër rawatina Waalo ak fi nga xamante ni moom mooy euh, daanaka euh, Taïba zone bi nag boo ko seetloo lu ñu fi exploité mooy euh, dañu fiy bay dañu fiy bay ak di fi sàmm ñaari activités yooyu daal mooy ñaari activités yu fi ëpp doole bay ak sàmm am na benn mine bu fi installé depuis 2015 waaw bu ñuy wax euh, gàdd bisik exploitation bi li ci indi ci jafe-jafe bari na euh, premier jafe-jafe mooy li ma la wax sànq ci bi may démarré euh, zone bi zone mbay la ak sàmm bi ñuy ñëwee jël toolu baykat yi ak sàmmkat yi def naan loolu déjà jafe-jafe mënu ko ëpp yi nga xam ne sàmm la xam bay la xam bi mujj ay maamam loolu la ñu mës a xam nga ñëw benn bis changé seen dund complètement jël seen zone bi nga xam seen seen suuf yi nga xam ne foofu la ñu doon yëngatoo. ba mu ne jël nañ ko bon ñoom boo waxee argument yi lañ jox mooy ba nañ ko jël mais jox nañ leen xaas mais joxuñu leen xaa joxuñu leen dara presque ay lañ leen jox. bu fekkee ni tool da nga ko yoroon say maam yoroon ko ay junni junni at mu yegg si ca nga yor ko yow ñun bu ëllëgee bu ñu lajeek suñuy suñuy maam sax dañuy dañuy rus bu nu demee yomal am dajeeg suñuy maam ñun dinañ am kersa parce que ñun duñ fi bàyyee suñuy doom dara ñun bi nu ñëwee ñu jël tool yi si ñun ñun amatuñu lu nu def ba pare li ci gën a metti mooy sunu doom yi fii nekk nga xam ne ñoo tollu ci ci ci ci wàllu liggéey tey kenn jëlu leen jël bi tax ñuy wax loolu mooy gën a métteeti encore te tey dafa bokkoon ci lu ñu diggee woon ak nit ñi ni main d'œuvre locale moom mooy priorité bu fekkee ne ñëw nañu lépp lu nga xam ne euh, zone bi nit ñi mën nañ ko bala ñuy jël kenn yéen la ñuy jël yooyu dañ ko doon wax le directeur manaar Ba du ko weddi man maa taxaw ci audience publique gaawaan mu wax ko fa ñëpp dégg ko am na yu bëri yu mu fa xoon dégg naa ma koy weddi après mais photo sonore yaa ngi fi li fi defoon yëpp am na ñu nga xam ne ñu ngi yor archive yi mi ngi fii am na ñoo xam ne mun ko weddi moom dafa jëkkoon wax ne ci ci bis boobu bis bu ñu jëlee suuf si contrat bi trois ans la bu trois ans yi jeexee dinañ leen danañ ko defaraat ba mu mel ne mu meloon wala mu gën parce que nee na suuf si bu ñu ko yëngalee bu mu kii bu ngeen ci bayaat dafay gën a nangu mais loolu moom déggaatuma ci kàddoom de mais dégg naa ñeneen ñu nga xam ne bi ñu ci waxee moom dafa ni non non non moom mosul wax loolu mais loolu mooy li normal sax même bu ko waxul. bu ñu demee ci benn zone exploitée que dañ ko war a réhabilité bu ñu demee mais nag ñoom bu ñu fi nekkee ba léegi sax dañ fi jógewul def nañ fi contrat wu trois ans contrat ba jeex ñu toogaat fi lu ma deux ans wala lu ko jege defatuñu dara amatuñu benn activité occupé suuf si ba pare ñu benn jour ñu xaat ñu ñëw woyu dañuy commencé nag benn grande mine parce que am nañu seen benn permis bu nga xam ne bii commencé na gàdd bisig ba gàdd escale xaw ay cinq kilomètres cinq kilomètres de de de de kii quoi rayon cinq kilomètres nee nañu lañu fi am cinq kilomètres sur cinq kilomètres quoi benn benn benn benn périmètre bu toll noonu mais seen seen permis yooyu ñuy wax guddeeg bëccëg dañ ko warul sax askan wi dañ ñëw waska wan ka askan wi ni leen permis yi ngeen nu permis bi leen wax mi nii parce que askan wi bu ñu bu ñu jógee di nu wax woy état moom moom su si domaine national la mais état ba mu moomee suuf si lu tax ñoom ñëwuñu rek dal ci suufu jàmbur ñi koy wax est-ce que ñoom nañu ñëw ci toolu jàmbur rek dal fa di bay amul ku ko ñemee donc état moom moo ko moom mais kan mooy état état mooy ñun nun noo état képp ku fi taxaw ci suñu kanam di représenté état da nga repré nun ngay représenter bu ñu ñëw di nax nit ñi naan wéy domaine national la bu ngeen nanguwul lee tamit dañuy jël suuf si parce que domaine national la mais non non mm, mooy nun nun nooy état. tooli maam ñi fi nekkoon tey seen borom ko yi dañ daan dem di ca bay ñu am si seen tooli ngont seen doom am si seen toolu ngont loolu lépp jog na fi tey benn borom kër gi sax pour mu bay problème la kër yi seen liggéey demeewul noonu am na si ñoo xam si am fagaay ñu ngi si dëkk bi defuñu dara barka Dembo Njaay lañu leen jëloon bàyyiwaat nañu leen élèves yi ñu fi jotoon a jël si vacances yi. dañu dem ba mujj ñu di leen yenuloo ay suuf xanaa gone kay boo ko dee yenuloo suuf bëgg nga karay rey gone dooleem attanul saaku cinquante la suuf loolu du yoon dafa am loo xam sii bu amee te nga xam si yow liggéey amatul nga ko liggéey amatul sax nga bàyyi ko mu dem moo gën la mu liggéey bu demee du ko faj la papa am na doon ko dundale mu di ko faje loolu jaadu lu ñaaw la bi ñuy bi ñuy bi ñuy commencé dafa am sax lu ñuy wax protocole bindoon nañ defoon defoon nañ ko mais accord yi nga xam ni moom lañ signé woon respecté wuñ ko waaw parce que bokk na si ci tey école bi ñoom biñ ñëwee dañ ñëwoon dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ defar dinañ defar fii ay classe ñaari classe yoo xam ni day ànd ak seen table mais yooyu yëpp defuñu ko parce que ñoom instant bi école bi boo fa demee amul ay classe ay mbaar rek la am ay mbaar fi mu toll nii parce que ñoo fa nekk ñoom tabaxuñ fa benn classe parce que ñoom miir bi ñu fi def sax miir bi agul dañ ko waroon suy dañ ko waroon raax suy ko mais raaxuñu ko suyuñu ko ñoom daal vraiment xam naa euh, kii euh, accord yi nga xam ne signé woon nañ ko defuñu ko parce que ñoom euh, bi ñuy doog a commencé 300 la ñu waxoon 300 yi ñu ni ñoom dañuy issin pour suñu gisee li nga xam ne moom la ñuy moom moom moom moom la ñu soxla dañuy fayaat borom tool yi ñu continuer commencé waat mais bi bi nga xam ne nii nag ñoom dem nañu ba gis continuer koy gis nii fayaatuñu borom tool yi continuer nañu di dem ci maanaam tey jii ci wàllu emploi mën naa ni boo dee xool tey jii. fii boo dee xool presque jeunes yi fi nekk ñi ñëpp mën naa ni boo dee xool xaaj bi liggéeyuñu comme ni ko grand bi waxee léegi parce que fii nii ñoom ñi nga xam ne tey ñoo fi nekk mën naa ni comme ni mu ko waxee noonu am na si ñoo xam ne tey jëli seen i feneen ay nit ñoo xam ne dañuy ñëw fii di liggéey ci fii liñ fiy liggéey amul benn liggéey boo xam ne tey jii mën naa ni ñi fi nekk xam naa mënuñu ko bu fekkee ni xam naa ay pokalee lay doon wala ay peel mais fii liggéey yi fi nekk yëpp mën nañ ko parce que fii nii sëfoor yaa ngi fi bare ba dee vraiment daal fii moom côté bi gisuñu si seen bopp yaakaar naa gisuñu si seen bopp bu baax a baax waaw fii nag comme naa comme mën naa ni que at ba at xëy xëy na ci affaire dimbali ci ci affaire ceeb lay doon ci affaire ceeb lay doon ceeb bu nga xam ne moom la gars yi di séddale di ko séddale village yi ci mën naa ni at ba at lay doon loolu moom moom xam naa moom daanaka taxul ñuy wax dimbal moom loolu moom taxul ñuy wax dimbal. dañoo ñëw fii ñoom. toog waxtaan ak ñun fii dañ fi soxla benn affaire affaire biñ fi soxla bis buñ ko fi amee bu soobee yàlla yéen daa ngeen ci gis seen bopp ndax bu dee problème mu emploi liggéey bi bépp liggéey bu nga ni ne bii yéen mën ngeen ko wala sën yi fi nekk mën nañ ko duñ ko wuti feneen te yaakaar naa miin bii lii fi nekk nii lépp bu dul machines yi machines yi xam ne yii kii yi ci des yëpp mën nañ ko parce que machines yi sax mën naa ne mën nañ ko parce que allemand yi ñu fi indi woon daaw jéeg almaa yi sax ñooñu liñ ci jël ku néew ñoom ñooñu ci dimbali almaa yi ñoo fi dikk formé booy yóbbu leen ci machines yi ñiñ fi jël ku néew ñu ciy liggéey mais ñi ci des ba léegi ñi ngi toog liggéeyuñu liggéeyuñu lañu amoon jël nañ ko amatuñu fu ñu bay nun daal fi mu toll nii daal yàllaay suñu buur daal waaw amatuñu fu ñu liggéey gisatuñu amatuñu fu ñu mbay parce que dañu indi ay nit ñu nga xam ne ñii si ñi fi nekk nii ñu ñu def leen comme seef ñu ni ñoom ñooy chef yi ñoom ñooy indi seen i nit di leen jël di leen dugal ci biir defal leen ay contrat nun liggéey biñ ci am nun liggéey bu ñu bëggee liggéey bu ñu bëggee liggéeyloo ay journalier liggéey yu metti lañ ñuy liggéeyloo lu mel na ay yenu ay saakoog ay yore di gas yooyu lañ ñuy liggéeyloo ak gardiennage gardiennage bu nga xam ne bi weer soixante-quinze mille lañ lay fay si mois ngay liggéey ñu arrêté la jox keneen di ñu ko ayanteloo bu dee problème jigéen ñi jigéen ñi fi mu toll nii sunu wàll gi gis nga ko ni mu toll ni mu rëyee ñeenti jigéen lañ fi jël femme de ménage trois mois lañ ku ci def trois mois jox sa morom ba léegi ni am na ñoo xam seen tànk jaaragul ci miin bennaan dañuy liggéey ci jeeg ji te tool yee fi mu toll nii ci lañ daan béy seen ñebe ak seen i bisaab di ci mën a wut seen i saaboo ki seen amatuñ ko amatuñ ko ñu ngi koy jëli feneen ay nit ay jigéen jigéen ñee fa nekk ne sax ñi nga xam ne ñii ñoo ñoo fa nekk ay fixe nekk fu di seefu ñii feneen lañ leen jëlee seeni i mbokk la ñoom ñoo leen fi indi def leen ay fixe ñu ñu ñu ñu ëmb suñ ñii di leen di leen jàngal di leen jàngal liggéey te ñii leen dàq liggéey ba ñuy liggéey bu dee wàllu togg ñii leen ko dàq bu dee wàllu femme de ménage ñii leen ko dàq liggéey ba itam comme ça góor ñee itam liggéey bi ñu leen fi indee nii fi mu toll nii am ñi nekk ci machine yi ñu di leen defal journalier journalier bu ñu leen ko defalee fi mu toll nii arrêté nañ leen indi fi seen mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo seen yeneen dëkk lañ leen jëlee indi leen ñoom ñoom ñu nekk ñu seefu ñi nga suñu waa dëkk yi nekk fii ñoom ñoo leen seefu ba pare ñoom dañuy continuer ñoom duñu duñ leen arrêté de ñoom dañuy continuer ñoom ñu defal leen ay contrat ñun suñu suñu suñu dëkk bi ñu fi doon journalier ñëpp arrêté nañ leen ci nawet bi te dañu demoon ñoom dañ yaakaaroon ne dañuy continuer bañ leen doon fartaatu ko ci ci mbay kus néew sax jotuñu ko bay defu bayu ñu defuñu dara fi mu ñu ngi nii toog kenn liggéeyu ci wax dëgg yàlla ñii daal bu ñuy wax daal dañ naan dañ nu bëgg a rey rey ñu suul ñu lañ bëgg man mii di wax nii chauffeur laa ñii nii toog nii kii nii ñii ñii ay chauffeur lañ dañ nii nax naan na dañ leen di testé bu ñu indee ay dañ nii nax naan dañ leen testé bu lay testé dañuy indi seen chauffeur teg chauffeur yi war a yor oto yi indi lañ leen teg ba pare léegi ñun dañ ñuy testé buñ la testé comme ça tey ñu indi oto bi defar seen benn affaire fii ni la dugalal fii oto bi boo ko fa dugalul ñu daal ni pare nañ ci yow da ngay gis ko testé sax jàll duñ la jël jël indi seeni safoor jël leen dugal leen ci biir ñuy liggéey noonu lañ noonu lañ fi nekkee ñoom bu dee problème suñu dispensaire waa ngi nii dispensaire bi boo fa demoon sax doo fa dugg baaxul dara dara baaxu ci te ñoom ñu nekk fii am dëkk bi oto du fi fanaan fi mu nii malaat bu ñu ko amee dañuy am problème sareet sax bareetu fi léegi oto du fi fanaan boo amoon malaat tey da ngay am problème amaana sax bala ngay yegg mbaaba garas bu nga koy yóbbu wala ceeb boo sàggantul malade bi malade bi dee ci yoon loolu yëpp ñu di ko jànkonte délégation bi mu waxtaanee ñun ba pare dafa ni léegi dañuy dem ñu natti tool yi bi ñu demee ba ca tool yi di ko natt ñoom ñu xool tool yi daal ni tool bi day ñun mënuñu ko natt ndax borne yi niñ ko defaree baaxul fekk dafa am natt buñ ko jëkkoon a bu waa mine bi jëkkoon a def moom préfet mu yeble woon ni dem leen natt ko léegi ñoom bi ñu demee ba di ko natt ñu ni natt bi day ñun mënuñu ko natt ndax nii niñ ko def borne wuñ ko kon lii nun mënuñu ko natt bu fekkoon ni waa mine bi dañ ko defar ay borne ñun bu ñëwee dañuy gis borne yi natt ko waaye ginnaaw mine bi defuñu ci ay borne dañ ñëw doo nga dem ñun lii mënuñu ko natt léegi dañuy dem ba altini ñu dellusiwaat natt ko ba yàgg ñu convoqué nu démb bi ñu demee préfet dafa taxaw ni man nattaloowu ma leen waruñu fa ñëw sax naan dañuy natt nun natt nattaloowuñu kenn léegi li am ba des yéen tool yi moomu leen góor gouvernement bi moo ko moom te dañ leen di jox ndàmpaay kese ngeen fa am te ndàmpaay loolu li tax ñu leen koy jox sax mooy jur ga fay dugg di lekk ak li ngeen xam ne da ngeen ko fa doon bay di ko fa góob moo tax ñu leen di jox ndàmpaay ñun leen ndàmpaay loolu bu ngeen ñu koy jox xanaa da war tool bi ba xam kenn ku ne li mu am nga door koy jox li nga koy jox te jox booboo dama defe ne woon da ngeen war a waxtaan ak ñun kenn ku ne nga ni temps lañ leen mën a jox ci mètre bi ban d'accord ci ñun lool lépp du am léegi daal li am mooy natt natt ñooña toon nañ ko ba pare ci natt boobu la ñu sukkandiku kenn ku ne liñ la war a jox boo ko bëggee nga ñëw signé jël ko boo ko bëggul affaire bi tay la yem te gouvernement moo moom suuf yéen moomul leen ko moomu leen fa dara léegi yéen li ngeen fa doon bay di ko fa góob ak li fa seen jur yi doon lekk moo tax sax ñu leen di ndàmp mais kenn kon kenn du leen ndàmp dara léegi bi ñu waxee loolu ba pare man ma dugg ci biir ñun ma signal man ko man lool du ma ko signé ndax signé bala ngay signé da ngay signé loo xam parce que yéen lii ngeen wax nun d'accord nu ci buñ ci d'accordoon sax buñ nee dañuy signé waaye d'accord ci ndax xamuñu lu ñuy signé ci kaw loolu ñu ne yéen daal bu ngeen signé wul tey jii moom affaire bi tay la yem kon xam leen ni amatu leen fi dara. man impact direct la suuf yi ma amoon yëpp jël nañ ko mais ay wecc lañ ma jox lii lii waa ji wax Birahim Seck ci euh, les les les milliards euh, euh, vont avec les les les les sociétés les les les populations avec la poussière je ne sais pas naka la waxee naka la bi mais milliards yi ñoom ñoo koy jël bàyyee na ñun poussière bi. donc mais nañ ñu respecté tuuti jël nañu suñuy suuf man man mii di wax yow li ma li ma ci jox suuf gisuma sax euh, gaw ma ni am na ku ma ëppale lu ma joxe mais li ma jox ci hectare bari na waa li ci metti mooy loolu gis nga bi bu njëkk bi ñu njëkkee ñëw jël suufu nit ñi lu mat quatre cent nangam hectares yaakaar naa ni loolu war a mais boobu temps ñun fekk nañ ci benn situation boo ñun xamuñu luy affaire mine xamuñu ci ñun waroon taxawu taxawuñu ñu ñëw jël suuf si natta ko dem ngay toog di leen déglu dañu xëy ñëw ñu leen ooy ku ci lii nga am duñu la wax sax ñaata hectare lañ la jël ak ci ban bareem lañ ko calculer ba ba jox la lii loolu ci gën a métti amul benn euh, nit ku fi joxe suufam ku la mën wax ni man jëlal nañ ma nangam hectare man na la wax li liñ ko jox ci xaalis mais xamul ñaata lañ ko jëlal ci hectare suuf si ñuy jël Euh, seen lu ñuy wax euh, RSE seen euh, responsabilité sociétale lañ ciy waxoon yëpp defuñu ci dara waalo ngi nii defuñu ko dara dëkk baa ngi nii defuñu fi dara ba pare nit ñi fi nekk xale yi fi nekk am doole war a liggéey jëluñu leen ñu liggéey te ñoom ñoo doon bay tool yi. Indien yi dañ leen indi fii waa waa waa Baobab ñoo leen indi fii ni signal nañ leen contrat vingt ans ñaar fukki at pour ñu liggéey fii ci mine bi mën naa ne fi mu toll nii yi daanaka. ñoo ëpp ci mine bi mais indien yi bi ñuy door a commencé liggéey bi dafa am ku ñu fi yebaloon ki ñu fi yebaloon bi mu ñëwee dafa wax ni ñun ñun sën yi fi nekkoon dafa wax ni ñu léegi yéen xool leen kenn ku ci nekk li muy liggéey nga ñëw déposé demande bi fii ñu dem déposé fi sama suñuy demande am ñu nga xam ne ñi ay chauffeur lañu am ñu nga xam ni ñi dafa ni leen yéen ay comme ça ay euh, ménabar ngeen ñun ñëpp ñu dem léegi mu mu jël ñu ñun ñëpp jël suñuy suñuy demande biñ demee ba ci digg bi mu ni waa Baobab ñoo leen bi ñuy baaj commencé ñoom indien yi ñu ni ñoom waa Baobab ñoo leen wax ni yéen waru leen jël bu ngeen bëgg amee soxla ay nit ñu ngeen di jël da di ñëw ci ñun ñun ñoo war a jël loolu la leen waa Baobab wax nee nañu ba tax ñoom indien yi mën naa ne fi mu toll nii jëluñu fi ñiñ fi jël jël nañ fi ay nit mais ñiñ fi jël barewul bu dee problème mu ñi ay ñoom ay chauffeur la ñuy indi fii di leen di leen kii seen indien yi daanaka ñoo yor camion yi moom indien yi kese ñoo ko yor indien yi lañ fi jël ñoom ñoo ko yor bu dee particulier yi nga xam ni ñooy nekk ci biir ak yeneen oto bagage yi ay nit la ñuy jëlee ji mboora di leen indi di leen di leen jël fii te fii boo dee xool métier mi fi ëpp mooy métier chauffeur métier mi fi ëpp mooy métier chauffeur amul benn chauffeur bu taxaw fii ni maa ngay liggéey ci indien e. te indien e ñi ngi fii daanaka mine bi yëpp dañ ko fees dell kenn liggéeyu fa borom kër yi ku si nekk da nga yor sa jabar yor say doom si sa dañu bëgg ñuy ñu jël leen ñuy liggéey kenn ku ci nekk am nga noo ma ne liggéey ba am na fa nañu leen jël normal ñuy liggéey ñu toll si gardien nañu garde ñu toll si daan seen doole nañu daan seen doole ñuy chauffeur su fekkente ne oto lañu leen jox te oto ba ñu leen jox ñu ko nañu leen formé ñu mokkal ko ki jànga ba ki jànga ba yor permeem kooko yomba naa jàngal métier ko jàngal métier mu dem kon nañu jël ñi nga xam si ñoom ñooy chauffeur yi ñu formé leen keneen koo xam si mën na te la mu man ma nga foofee ci ñuy liggéey nañ ko jël ñu formé ko xale yu ndaw yi nañu di leen formeel sunu place wér gi yaram bii moom la ñu yëg moom la ñu fonk sunu jeeg ju ndaw ji bëgg nañu liggéey bëgg nañu liggéey ndax yoratuñu tool yi ñu bay yoratuñu àll bu ñu taxane yoratuñu leen bu ñu xëyee suba daal fii la ñuy dajaloo si garab gi ku ci dem tool yeewi sëy bay foo sàmme sax amoo ko foo sàmme sax amoo ko dangay dem yeew sëy bay daal di yegg si waat si garab gi toog ñuy waxtaan ba taali añ jot ñu dem jóg dem taali añ tey nag ñun li ñu metti lépp comme grande mine bi ñëw na la woon bu njëkk xëy na bu paase na waaye lii nu na nañu ni dimbali ngir yàlla ñu jàppale ñu ñu jàppale ñu ndax la nga jëlee ko njaamur ca àll ba te gi seeni borom ñu moom ko nga jox leen ko moom moo ëpp tuyaaba moo ëpp fulla moo ëpp jeune la élève la dama bokk nag si première génération bi génn si lycée Ba garage mais fi laa juddoo fi laa yoroo fi màgg te mine bi exploitation bi sama kanam la te biñ koy exploité boobu ñoo ngi def classe CM2 jotoon nañ si def sax enquête bu yaatu si impact yi muy am si population bi mais loolu lépp suñu prof suñu enseignants yi li njëkkoon wax mooy impact bi gën am mooy si impact wàll si wàllu wér yaram te te tey jii boo xoolee ñoom accord yi ñu signé bi si gënoon bi si gënoon jox gëdd mooy hopital parce que ku xam miin ak effet yi muy def si population nga war a xam ni lii nii dina am impact bu baax si wér-gu-yaramu doomu aadama te ñoom miin bi balaa moo doon taxaw sax dañu waroon taxawal fi hopital nga xam te ni cas urgence su amee ñu yóbbu la ku ne xam na ni yoon yu baaxul te fii kenn mën fi teg nit di ko yóbbu Bambey wala feneen. kon loolu noonu dafa waroon nekk lu njëkk lu ñu waroon njëkk def mais ba léegi fii nii hôpital amu fi bi ci topp mooy aspect éducation l'éducation est fondamentale dans un pays qui veut développer maanaam jàng dafa am solo si réew bu bëgg développer parce que réew si xam-xam lañ koy développer te boo xoolee fii nii éducation bi joxuñu ko boobu gëdd tey ji dama koy tàmbalee si suñu rakk yi doon jàng fii primaire tay parce que salle de classe matul. boo demee fële na tey ay ay saaket la ñuy mbaar booy di fa jàng te xam ngeen ni ñu ni la yow même pas un kilo un kilomètre mine bii nii ñu ni la école bii nii mbaar lañ fiy def pour jàng xam nga loolu normalu responsable sociétal d'entreprise loolu ñoom respecté wuñu ko bi su topp mooy ñun ñuy jóge fii nii di jàng jee baaba garage loolu nekk tamit loo am lu metti la condition yañ fay dund dafa metti woon ba man mi nga xam te man maa fa nekkoon seen mag dama leen dajale pour dem si ñoom sax pour ñaan leen ñu may ñu benn oto mu ñu yóbbu ak di ñu indi parce que dama man dama ko dund dama fa nekk ñoom gis ñu koy dund ma xam ni lii nii mënatul woy te booy bëre ñoo ngi manque moyen du seen nilaar de du dara parce que condition yañ fay dund la te te xale xale la rek te ku nekk tey ñaan nga yàlla toog si say waajur di jàng ñuy xam si li nga nekk pour nga mën a réussir loolu tamit beneen aspect bu mag la boo xam te ne tey ñoom war nañ si taxaw te ñoom accords sax dañ si boole woon que ñoom dañuy tabax fii nii CM tabaxuñ fi CM kon élèves yi jóge fii di jàng fële war nañ leen teg dans les meilleures conditions troisième point bi mooy tey ku jàng ba am bac ñoom suñu mag yu bëri tey bu ñu demee di wut fële liggéey lu leen wax jàngu leen mais ñun jàng na nañ ñu ñun tamit ñu toog fii liggéey parce que ku na xam na ni ngay dem feneen di chômer wala ngay dem feneen di jàngiwaat nga toog sa fii am na miin ñu former la nga toog fi liggéeyee fi tekkee fi moo gën ngay dem di some di feesal foofu noonu ba ñuy jël gaal gi wala dara souvent nag genre problème yu ndaw yi ñu koy négliger mooy indi la xewoon Kédougou fan yi passé mooy indi leneen nag leneen ñun daal ñun ñoo ngi lancé appel les autorités compétents ak képp ku si mën a wax nga wax si parce que ñun son nan te nag nit moom bu sësee rek def lu mu bëgg te def waaw mais Sénégal nag dañ tàmm su problème amee ñu koy négliger ba jëy yi am nag ñuy doogaa woote ay réunion ak yooyu noonu mais ñun ñoo ngi ñaan préfet gouverneur gi yëpp ñu toog ñu waxtaane lii nii balaa moo jéggi dara parce que ñun son nan ay jeunes lan te suñ avenir si lii lañ ko yaakaar parce que ku jël sa suuf joxe ko fii nii mbay ak sàmm lañ xamoon te xam ngeen ni la lan fa jël sa suuf lépp lépp kenn mënatu fi mbay ak sàmm fii ak 25 ans lan mooy nekk avenir bo yooyu di màgg boo yooyu kii di judduwaat ëllëg kon nañ leen former. même ñu mënul liggéey fii sax ñu former leen si ay métier buñ fi jógee man dem feneen liggéey. ci mbirum meen bi suñu diggante ak ñoom. maanaam bi ñu fi ñëwee am na yoo xam ne bii ne yu bari la yoo xam ne doon nañ ci wax te yàlla dogal na am na yuñ ci def am na yuñ ci deful ndax ñoom bi mu fi ñëwee dañoo waxoon diggante village maanaam dañoo waxoon duñ sakk yoon sakk nañu suñuy yoon dañoo waxoon duñ toppale dëkk ñëw nañ ba ci sunu dëkk daanaka dañoo waxoon itam na montage mi maanaam euh, fi ñuy exploité ak ak dëkk bi lu mu gàtt gàtt day mat juróomi téeméeri mètre te xam naa sax suñu diggante yaakaar naa fi ne instant bi yaakaar naa sax juróom fukki mètre kon xam nga foofu jalgati nañu waxoon nañ duñ sàkk suñu yoon sakk nañ suñuy yoon fem fi ne nii maanaam ndox mu neex mu ñuy naan sax buñ koy rooti fa ñuy dem di jéggi ji dañu fay am problème ndax seen oto yi day dagg yoon yi ba boo ñëwee doo am foo jaar jaar loolu lépp ay jafe-jafe la bu loolu itam waxoon nañ fii dinañ fi def daara école wala ñu dooleel école bi nga xam ne bii ne fa la xale di jànge ñu man faa jàng njàng mu baax fi ne suñ xale yi bu ñuy jàngi sareet la ñuy jël tax wiiri bu sori bi sareet bi naam ñoom ñoo koy fay mais nag ay coono la ndax ñun li nu gën a leen oto boo xam ne bii ne mooy jël si xale yi di ko delloo waaye nag naaj bu tàng bii ak xale fu muy toll nga di ko jël ci oto di ci sareet di ko yóbbu yooyu ay coono lay doon miin baa ngi ni moom gis nga ndox mi ni muy wàcce mi ngi ndox mi daanaka mi ngi ñëw si biir bu nooree bu seen machine yi tàkkee fii doo fi mën a nooy waaw teen baa ngi nii gis nga ni ko ndox mi wane xam nga kon jafe-jafe am na wér-gu-yaram itam jafe na fi ndax fi mu toll képp ku lay nii di dem bu la waxut bu la waxee li moom dëgg-dëgg képp ku fi jaar dem rek am na lu muy wér yu muy sooxaale kon nag wér-gu-yaram sunu xale yi dem na sunu ndaw yi yàlla koo ci woon yi bu ngeen daanantee su maag euh, poto bee du la dégg seen nopp yi baaxatul xaw ma lan la ah est-ce du miin bi moo ko waral ndax bi fi miin bi niveau gudd ab loolu amu fi woon am na dund buñ fiy joxe dund bi par année lañ koy joxe mais dund bi liñ lay jox mun laa yor ñetti weer yi mat waaw waaw dama ko waxee noonu rek kon xam nga xam nga kon boobu social moom amalul la njariñ moom bu la bàyyoon nga ko nekk sa bopp sax taxale ji mooy mooy tane si yow kon xam nga loolu kon amul ah wàllum l'hôpital waxoon nañu dinañ def hôpital fii wala ñu def waalo hôpital bu mag boo xam ne bii ne yéen bu fekkee mën leen am seen hôpital bopp di ngeen dem waalo mën faa fajo ñu dooleel waalo defuñu ko fi ne noonu bu soxlaa faju ceeb la ñuy dem wala Lambaay wala Mbaba garage waalo moom daanaka opital bu am solo amul maanaam dëkk bi fi mu toll nii maanaam jeunes yi ñoo ëpp mag kër Ibra Xoyaan tey ba kër Ibra Xoyaan ñu ci bari na tey lañu ci gën a xam mais kër Ibra Xoyaan la tudd kër Ibra Xoyaan kese instant yi moom jeunes yi ñoo ëpp ñoo ëpp mag ñi ñi genn wàll gi wàññiku nañu genn wàll gi tuxu nañu daanaka seen yi ñoo ne instant bi nii moom fii lañ fi ëpp di def moom li fi min bi fekkoon bay ak sàmm moom la fi ëpp lañ doon def moom moo nekkoon suñu liggéey moom min moom li fi def ci ci affaire bi bari na ndax ñun maanaam boo xoolee ne doon béyee boo xoolee garab yi sax boo leen xoolee changement garab yi loolu yëpp ci mine bu la jógee ndax garab yi dund gi war a dund dundatu ko maanaam nit ñi tamit wér gi ñu wér bi wératuñ ko ndax bu wér bii sax du garaaw mais bu nooree bu nooree day am poussière bu sew boo xamante ne même boo tëddee si biiram léegi sax guddi machine yi liggéey poussière boobu day di dugg di dugg ba nga koy sentir yow fi nga tëdd maanaam nelaw sax yu neex doo ko mën waxuma la réew mi sax mais moom mais poussière boobu rek da lay traîner nelaw yu neex loolu mu gis naa ko ci ci affaire bi maanaam tamit man soo gisee nga ne ma laaj ma affaire liggéey ma man liggéey bi liggéey ma ci parce que man ci dëkk bi laa dëkk yàgg fi yaakaar dëkk bi ba fi nekkee ba léegi nag maanaam di liggéey tamit man am naa métier moo xamante ne bien tey ji <coughs> su ma ko liggéey tey jii nii fii ci miin bi di gis sama bopp na ma ko war a gis sama bopp kon du bay sax du ma ko defati mais liggéeyu ma ci parce que liggéey bi may jël déclaré naa ci départ nag ne man soudeur métallique laa am naa samay diplôme war fee liggéey mais nangu ñu maa jël jël bi may jël mooy ay gardien gardien bi may gardé it ñàkk pexe la comme ci dëkk bi laa dëkk mënu ma ko ñàkk def waaw ay xam nga ma jëm yor kër yor ak njaboot bu defee weer soixante-quinze mille xam nga lool du liggéey te am métier jàng am sa lijaasa nga xam ne normalement tey bu liggéey liggéey bu fekkoon tegoon ci yoon benn weer bokk fay war naa de lool ay weeri weer xam nga lool tegul ci yoon moom mais nag comme loolu fi sës loolu fi sës ko waaw jafe-jafe boobu moom am nañ ko ci moom. ci jafe-jafe lañ toll jafe-jafe bi ñu toll it ñun yërëm nañ suñu bopp waaye nag nit ñi nga xëy ñoo ñu wër ñoo ñu gën a yërëm ndax ni ñu dundee nii kenn ku ne gis ko te nii nga dégg may waxee noonu sama baat bi dee noonu keneen ku mel ni man baatam mel na noonu te dara waralu ko lut maanaam ndox yi ñuy naan ak poussière yeeg riir bi kon nun wax dëgg yàlla sonn nañu ku nu dimbali bëgg nañu ko ku nu daal. ba nga xamante ne ni ñu bëgg dëkk yi mel ni suñu dëkk bi mel ni nu am fajukaay lu nu métti ñu mën faa dem nu faj nu loolu bu nu ko daal sant sunu borom bu baax a baax doolee sant semaine bi passé rek yàggu dara maanaam directeur wu mine bi taxaw na ak moom fii taxaw nañ fi waxtaan nañ fi lu bari gis na fi lu bari am na am na lu ma wax am na am naa lu ma ko wax kon maa ngi bàyyi sama xel ci foofu ndax it day am foo xamante nii man du fa mën a dugg ndax dafa am ñu may waxal ñu may waxal nag bëgguma du fab sama kat di ko dugal feneen te ñoo nekk kilifa yoo xam ne dañuy jóg di ma seet li ñu ma wax man ne dañ ko jëflanteeg man maa ngi ci bàyyi sama xel ñoo itam ñu ngi ci bàyyi seen xel léegi nag li ma wax ne man fii ma toll nii ku ma defaral ba ma mel ni dëkk yi dëkk nit ñi mel loolu laa bëgg sama dëkk bi mel ni dëkki nit ñi mooy naan ndox mu neex di taal ay lam lu lëndëm ma gis ko mu leer jox na ma ay solaire comme nga gis muy tàkk am na yeneen yoo xam ni waxtaan naa ci ak kii alterné dañ ko bëgg a taal moom directeur bi jox na ma ko léegi nag ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii ah, mu ngi ci sunu karam ñu egg seegul dégg ngeen ko noonu muy kaddu yi nga xamante ni moom la waa village yi euh, li nga xamante ni mooy gisement bu Gadde Bissik muy euh, compagnie boo xamante ni daanaka ñoom ñoo fi exploité phosphate fii nga xamante ni moom mooy Bambey ci euh, zone bi nga xamante ni moom mooy Gadde Bissik dem ci Baba mais village yi nga xamante ni bokk nañ ci village yi gën impacté dégg ngeen ko noonu mooy waa Waalo ak ñi nga xamante ni moom mooy waa Taïba ci wàllum impact environnemental mais aussi la responsabilité sociétale de l'entreprise li ko war digganteem ak askan bi daanaka lu ci bëri des na euh, surtout ci li nga xamante ni moom mooy euh, li ñuy diglante woon seen diggante ak askan bi defuñu ci lu ci bëri rawatina ci wàllum njàng mi ci wàllum euh, santé bi ñoom daal soxla nañu li nga xamante ni mooy hôpitaux yi mais aussi seen yoon yi tamit ñu mën lañ ko defaral te li nga xamante ni mooy xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci dëkk yi ñu employé ci biir entreprise bi lee te li nga xamante ni mooy seen wàllum payoor ñu yokk ko ndax war nañ ci mën a gis seen seen bopp ndax fi ñu leen fekk mooy ci zone boo xamante ni daanaka mbay lañ doon def te mbay boobu tey gisement bi jël na seen terre seen suuf si te ñooñu buñ leen jëlee war nañ mu fay loo xamante ni mën nañ lañ ko mën nañ ko dundalee seen seen i njaboot ba ku ci nekk mën ci gis seen bopp mais aussi di tendre la main à l'état du Sénégal que bii nga xamante ni ñoom ñoo sëkk gisement bu Gat Bissik ñu mën a gis seen bopp ci li nga xamante ne mooy exploitation minière bi société bi respons euh, respecté li nga xamante ni mooy contrat yi ak li nga xamante ne moom la diggante woon ak askan wi zone bi mën a gis seen bopp ñu mën ci euh, séntu li nga xamante ne mooy naat développement rawatina fii nga xamante ni moom mooy Bambey la zone d'exploitation minière euh, de phosphate daanaka 2015 la donc euh, lu bëri euh, daanaka beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts ñoom war nañ ci mën a ji seen bopp mooy doléance bi nga xamante ni moom la ñuy yëkkati fii nga xamante ni moom mooy Bambey